dikkaat tuuti ci affaire Mouhamadou Nourou Niass Cheikh Mouhamadou Nourou Niass bokka Mouhamadou Nassirou Niass ne baay bi ko Mawlana Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Nassirou Niass indee ko ci sama loxo papa ko mu faju ba docteur Kabir Thiam di ko faj keroog bi nga xamee ne feebar na bi nga xam ne cancer bi dugal na ko bi muy waaj a génn àddina ndeysaan keroog doomi Baay Ñas yëpp ñëwoon nañ sa si ko bokkoon ñu taam ci kër góor gi Pa Abu Thiam keroog imaam Assane Cissé ñëw na ànd ak yaayam di caabi maam Baay Ñas ko oyee yaa Fatou imaam Assane Cissé ñëw na ànd xalifa bi ñu Alaaji Abdoulaye Ñas gars yi ñëw ànd ak Papa Dame Ñas daanaka daal doom yu bàyyi yu yëpp kër ñëwoon nañ sa ñëw Ñas seen doom yu bàyyi nga xam ne seet ko nag isaan pour tàggatoo ko moom pour ko tàggatoo ko moom ñëpp ñëw wàcce suma kër papa ñëpp ñëw jaar suma kër papa ñu toog fa moom ba ca kanam gaa ngi éwee ku dem fanaan yu fa nag waaye dañ fa toog daal waxtaan fa ñaanalante moom yàlla ci la gaa yi dem lii rek dafa wone njabooti sëriñ bi ak njabooti Maolana Cheikh Al Islam ñu jubóoyee woon ak itam wërsëg bi yàlla wërsëgal góor gi Abdourahmane Thiam bi nga xam ne njabootu baay gi yëpp ñëw nañu daje këram ci bi doomi baay feebaree di ko ci mu génn àddina muy Cheikh Mouhamadou Ndour. jaale Mouhamadou Ndour Niass bu Baay Baay. ba yar ko yar bu rafet. Yes, néegam xam-xam muy néeg muy néegam xalaat bu doon lépp ci la ko def fajal ko njëkk yóbbu muy Libya jàngal na fa ba andi yaayam baccalauréat néeg yaayam baccalauréat takkoon naa yaakaar nga jëlee mu xamee ko mu jógee ko yéen na ko demal Misra mu nekk fa di jàng ba fekk ko fa mu ngi ñëw saa saa seet mu ne baayam daal di ñëw ne ko dama lay yóbbu nga dëgg yàlla mu ne ko nooru man maa ngi jël yow yaa ngi jël na nga fexe ci biir sa baay ak sa yaay ci daara bii ci université Azhar bii maa ngi lay ñaan luy gaar gone yi la gaar mukk ba mu neexal mu ne ko demal rek nga sa xel doy mu nekk ko ba ñaar fukki at ci njàng am na lisaasam ci sa rajo ci éducation mu am loolu nag buñ koy laata am buñ jàngee ba war a topp baraas bi ñaari baraas da ko bindi leetar yónnee ko ko ne ko mag sama yaa taxaw sama taxawaayam baay yaa samay mag مناهضة الله حقيقة ñoom nag daal la ñaari balaar bu ma jiitoo mu ne moom nag mu ne balaar balaar jiitoo moom la sànnoon pour nekk pour naaje wala éducation sàngam sàngale ak xam ko ne ñoo koy yore ak ñoo koy jàngale mu tontu ko mu ne ko sa balaa sa baay bi day man moom laa lay tànnal ndax sa baay ak say mag yëpp ak boobu baay yëpp ñaxeen yëpp dañ leen xel xëy na xalaat jàpp laay ñi nga xamoon kon maa ngi lay ñaan la baraas boobu mu nekk ca ca xaaj ba nga xam ne arab alquran am xalaatam dinaa xëy ba muy yaata ak mu ne ko mukk mu ko bul toog bul naagu bul del ko gannaaw mu del bee ci misaal ba ñëwee ci saase léegi mu ne ko sàmm bi ma la waxoon xëy nga dimbale la moo ko doon dimbale ba mu ñëwee ba tey da koo xaw ci école bi mu ngi ci naxulaay mu ngi ci tukki mu was na faju was na noppalu was na tëdd ñi ko yóbbu mu tàllal ko Banjul moom moo ko yóbbu mu ne toog na ko yóbbu ko Banjul mu ne lu tax nag Banjul alhamdulilah Gàmbi ñu jigaare ñaxee te Maam Alaaji Abdoulaye la woon yéen ñëpp xam ngeen ko ñaare daana yóbbu Sénégal njabootam ñu ko xaj di yóbbu Banjul ñu ko yóbbu ñu ko xaj ñu ne loolu yëpp sëriñ nga xam nga ko tool ci loolu yaayam feebar na yóbbu na ko fa ñu may ko fa ab baat mu def ko daara Alaaji Abdoulaye mu xaatee ku bëri yaay bi mu yóbbu ko fa nag ak ñii ñu koy gërëm moom njabootam moo ko njëkk a tuddee doom ci àddina mu xool ko yaayam ba mu réer mu yóbbu ko sëtam doomam doomi Maamadu mu ne war na ko la fay ñu faj ko ba njëkk mu yóbbu ko loolu feebar bi nekkoon ci moom yëpp dindi nañ ko ci moom loolu nag ñu ciy wax bu kenn war dara léegi defe nañ ne mu ne defe nañ ne yàlla rëyatu yàlla mooy kuy dundal yàlla it mooy kuy rey feebar boo xam ne bii nag kenn mënu ca dara dal ko feey loolu moo di ko yóbbu dinañ ko muñee nag lenn dinañ ko muñee lenn dina ko muñee baayam baayam a ngi nii moom rek dana wax ne moo doonan ñaareelam ci liggéey bi alhamdulilah nangul ko waaye nag dana wax la baayam waxoon ci Baay Nday ne moo doon sama ñaareel fu ma taxaw man fu ma fa taxaw de su mettee ak bu météo loolu dina ko nag moom mii dëgg-dëgg ku bëgg ku bëgg respecté ku bokk mu ne moom ku maslaa sax fuuf bokk ku xam ubbee ku baax mu ne loolu daal wax dëgg yàlla moom la ci doon wax mu ngi koy gërëm yàlla jàppalaay mu ne ngërmaande nuur nag dana ko jëtal ci yow buñ demee fële ak ñeneen nga jëtalee seen ngërmaande mu ngi lay gërëm jox nga ma sa alal jox ma sa oto ba alhamdulilah bi muy ñëw yàlla def yëpp yaa def yëpp mu ne yaa def yëpp raw bi def yëpp mu ne yaa raw bi def yëpp aw yaa raw bi def yëpp ba ñëpp yëgaloor ko mu ne leen moo nekkum baay yi di sab taaw te ba ko juree nga moom la njëkk a yar ci école bi muy muy sab mu taxaw taxawaayu noonu mu ne loolu bu ko fàtte moo tax biñ mu xewu loolu teg ko ci woto bi ñoo koy wutal ko alhamdulilah ñu ne loolu moom la ciy gërëm di gërëm kër yi nit ñi nga xam ne saa yéene ko woon demal jàngi soo ñëwee di fay sama njaboot loolu tax mu fajal ko ko mu jox ko loolu faj na buñ paasee bañ ko yóbbu Angleterre ko moom ban période bi ba léegi ban période campagne bi léegi mosut a seere dara affaire itam jox na ko alal ak góor boobu yóbbu loolu ba ñu koy bu tey alal ak ma ji mu ne dëgg yàlla yàlla yàlla jox bilaay bëgg na daa nga gërëmal ko ñëpp rawatina nag waa Gàmbi xeex nañ ko xeexal ko njabootam xeexal ko daara ja xeexal ko lépp dëgg dëgg alaay jox bilaay yàlla koy rat ñëpp mboolem bi ñeexoon mboolem bi bokk ci góor ak jigéen mu ngi leen di wax ne yéen a ko daan jàppalaay seen rakk ngóob seen rakk ngóob foog leen jël yóbbu ko baal baal a tax ne moom ñàkku dara. alaaji Ibrahima mu ne waxoon na lu bëri ndax lu tax mu ne ñaari moo tax alors dafa war a amaat oo xam ne boo ko bàyyi ko xëy bu xëy kaaru baay keroog koo xam ne boo gisee kaaru baay doo ko teral. kon boo gisee baay doo ko teral. kon Alaaji Abdoulaye. soo teewee. soo rekk teew. ci teewee baay. mu nekk xodira. Jannatul Khulud di ko wax wax jàng xalu ko ndax su ci waxee dafay doon jaarul la jàng koy nekkee ak ñàkk wax te muy ñàkk wax ci kanamam yow boo teewee balaa kon balaa lay ko di ci wax lépp a ngi ci Sëriñ mu ne alhamdulilah ñu ngi sant yàlla it su nga xamee ne ki nga xam ne moom lañ yaakaar teewu ñu dugal ci gën a tuut ci moom man la xalifa bon xalifa bi mooy xalifa mu téye bi alaaji Abdoulaye nañ sant yàlla te jébbalul yàlla jébbalul baay jébbalul ki nga xam ne moom la fi ba muy alaaji Abdoulaye bu téyee kenn amatul loo war a wax lu may moom moo war a wax te xam na li war a jotaay bu ala jot yaa xam ne ko war a wax kon nag nañ jébbalul yàlla jébbalul ala jot yaay te sant sant ala jot yaay mu mag ma kooku moo ñu gën war a dugg gaa mu ne bidon yi neewal ci njëriñam ak kunde ak sàmm yi xanaa jàpp yaay ñoo ko dundee woon moo fi dindi bidaa boo fi dindee bidaa bàyyi doomam yi bàyyi waxoon na ne waxoon na tey xalifa ne ko sant nañ la ndax di nga ji koo jàng ba mu fekk ci sa tool nga yóbbu xam-xam donc kër gi nekk ko def xam-xam ku ci gën a tuuti man la ko ñu xool ku yi ma baay sa baay du kenn moom du ko yar sa doomu bopp yar doom yi nga dugal bañ mel ni sa doom xam nga waxoon woon ak yàlla xool bu ko taalifal bi ñaan gum ñaan su ko ñaanee ba àggal xaw a xona ñoom ak xonay doom kooku kenn du moom bon na nga ko yoon a yoon te jébbugul yàlla jébbugul baay jébbugul alaay jàbbu yaay jébbugul ay rakam sant leen ñu topp ci koom ñoom ñëpp ñu ne ko war a jikko ñun ñëpp ñu ne ko fooy jikko di déglu ay waxam di déglu ay ndigalam xam na lu muy wax wa alquran ak hadis alhamdulillahi rabbil alamin wa salaam mbokk yi kon ñu ngi leen di nuyu mag yi fi nekk ak suñu gaay yi fi nekk kon ñu ko faala ngi nii taxaw ci sàppe fi bàyyi marmara ngi alhamdulillah rakam nañ ay rakam yëpp ngi nii taxaw ci sàppe kon ñëwal sant yàlla la mu ne Mouhamed Nourou Diine nii nag ki nga xamee ne daal di koo jëloon ci ay rakam mu ne ko jëlee ci Basiiru ba Isaaka bi mu ne boobu fekk na ñooñu ñooñu mu ngi am kàttan di leen sàmm ci daara alquran yi bu fekkee daara ji doxee na nu mu war ko doxee mu leen toppatoo ko ñu bëri ci ñoom moo fexe ñu yóbbu leen gàllaar ëpp na xamoo bi buñ gisee demal mu wëttu alquran yéen tey dafa nekk muskallah mu joxe mu ne baay nañ ko jox rabbaani mu yóbbu ko ay xub ba gànnaar ba daawul wërënteeg moom la moom baay jël na ko yàlla ko yaaram di ñooru li wëtu alquran ñaaroo ko ne ko ñooroo ngi nii wëtu na jox naa la ko liggéey ko boo ko doon wax ne nii doon ko ajuruma di ko jàngal di ko jàngal ba ci ñaanoo ci lafaam wala maam nga ko ko fàtte benn yoon loolu lii de mos ko fàtte naa laa jàpp yaay mooy suñu ñetti loolu ba génne ko jàngi jot ñu génne ko jàng ci turu baay maar ku bëri ci ñoom moo ànd ak ñoom di extérieur leen ci seeni école ñu kookoo di jàng mu ne loolu daf koy ñettali nit sant yàlla wane loolu nii mu ngi ko jàng alxuraan yi mu ngi ko jàng xutba kat yooyu moom lay déglu mu ne ba muy nelaw moom nit ku xonk ci réew la nit ku xonk kër kër la bu yàgg bu dundee xonk ci seen kër yi dafa ñëw ci sëriñ bi ni ko damaa bëgg a fonk Olympique mu ne man maa la koy joxaat bu soobee yàlla na nga toog mbir ma da day tukki rek ba ma wëññeekal ànd ak yow te la fa wax ko taalibe yi yàlla dogal mu dem ci àgg xaw xaar yàgg ba ñu ko xool itam yëngu ko def moo ñëw ne ko ah man de def naa dara mu ne ko loo def mu ne ko dem naa fenn ndax nawet bi dafa mu ne ko foo ca mu wax ko ko mu yëkkati ndimbal lan ko koy defal wax ko ko kooku nag def na la ndax nit ki boo xamee ne li muy dugg ñëw jaar ak yow ñu muy génn ñëw jaar ak yow jox na la caractérisé nit ne koo xam ne day gëstoo ci naan baay def ko jox def ko bitim réew jox ko ci muraadoom jox ko ci nangoo sonn kon loolu doy na màndargaam daa sukkër yi tasaaroo ci gudde ko ci baay bu tasaaroo ci doomam yi kenn ku nekk jël ko benn dina doon ndaw rawatina nag ku ko am ñaaram natt loolu yii mën naa na ko ay jikkoo am na ci jikkoo yar ndax baay bu yaru la ana di rafet yii seen jaam mos na तय कर लेना है रखे हमने डेढ़ घंटे के लिए दो बुक के लिए दो मैं उनको भी अच्छे विज्ञान अच्छे निकला निकलो और जो विजय जो नीति के लिए मुझे दिए mu jàllal bu ko wax leen ak pexe bu mag xëy leen nangam ak nangam ak nangam ak nangam ñu koy ñëw daan na ko mu wax ngaa dugg bi xëy mu ne ko mooy lan mu ne ko ku yaru ba wër ku xëy doom waaye béy ba nit kon dañoo mu jàpp ko ñun bind si waat ñu xam ne sëriñ Gaal xaal xeetu la te addina noonu la nit ki bu la juree juree yar la te ngaa war a jëm ci ay jikkoom seet ko te jikko bàyyi benn bu ci nit ñu dal di rafet nit la koo xam ne la dëggoon mu ne bu wax ne jullit la dëggoon nit nit rek la dëggoon nit ki daal ak lu mën doon daal dëgg na la loolu moo doon di koy bàyyi naa ko di liggéeyal lislaam ñëw nañ ko lislaam ku ko liggéeyal lislaam ndax bu ko rafet yooyu rek ñëw ko ci nit ko ci moom te wax bu ko xëccee jëme ko ci moom loolu mu jëme ko ci yàlla loolu mooy jikkoom loolu lii rek moo ko jur ko xonk na ko lool nag mu ne itam na wax baat boobu dina ko wax kene tax ba ne loolu dund na keroog la taaloo am na kumpa ñoo bokkoon nekk ca daara ja jàng mu bindiloo ko saafara nga nan ko ko jox saafara suufe dañuy ko gudd dañuy tudd Nooru te dëkk juróom-ñaareel ba bés bu nekk dinañ ko ko dundee kon ba amoon na ci moom na ko nit kon ndigal yi xam na ko defee ko na ko kon nag bés bu ko yàlla dogalee ñu dugal duñ def lu may sant yàlla la. dinañ gërëm di rakk ma fi ñëw. ni mu ko waxee ñu moo ko wax ak Banjul. war a war laa war a wax ak ñoom. kon digal na ko yàlla na ci biir قد أخفاك والقرب أبهدت لي وجهك من واج يوم صائر وبعد الفناء في لا يكن كيفما تساء وعلمك لا جلال وبيلك لا يسرى فلم يبق إلا الله لا خيرها فما ثم موسى فلا سم بائن فلم يكن خيرا فانفي خيرا وإنما توهم تتعدى فليس سواه